ak ñi xam daanaka jaroon ñu ut parrainage noonu la ko yéen kaay gir wàll fu ko loo xam yéen kaay gir wàll fu ko tëjee xëy na ko fesal te miñ ne jamono ji daal nit la koo xam ne ku gaaw a la loolu nag lan moo ko waral yéen kaay gi wàllu côté ji dafa xëy tey ji daal si amal ab taxaw seetlu taxaw lu mu ñëw xëy yéen kaay gi dafa xëyee dellu si waat ci coow wala gite ngaas nga xam ne meew ko dañ ko jamono ji ci biir parti bi di APR rawatina kon ci seen base politique bi lee ndax boo demee fële ca Kolda ku ci mel ni Mame Boye Diao ak Doura dootuñu ne dootuñu jaarotaal nga dem fu ci mel ni euh, Linguère Doudou Ka ak euh, euh, nga dem fu ci mel ni Podor accord doon nañu xaar combat war a dox ci diggante Abdoulaye Daouda ak kii Cheikh Omar Anne yéen kaay na xëy dellu siwaat ci njeexitalu euh, dissidence euh, ngi ci yéen kaay gii di l'Observateur Abdoulaye yéen kaay geneen a euh, yéen kaay gii di source a ci waa parti Pastef bi nga xam ne dañoo mujjee saisir waa cour suprême ngir ñu nenal décision bi nga xam état bu Sénégal jël na ko daal di tas seen parti bi lee te ñu jàpp mbir yi di du yoon fanweeri fan ak benn ci weeru sulet lañ ko des dañ tasoon euh, Pastef fu mu toll nii xaar nañ ñaari weer laata kon ñu déposé recours mu nekk nag recours boo xam ni mën nañ ci am yaakaar noonu la ko yéen gii di suuf sax xëy fësale yéen kaay yéen kaay gii di l'évidence na Abdoulaye Daouda mujjee naa mm-hmm. ba ñu tànnee Amadou Ba ci kawam waaye moom mi nag di Abdoulaye Daouda kon euh, moo fa jaar mi ngi ci yéen kaay gii di l'évidence waaye le quotidien yéen kaay ne Abdoulaye Daouda Diallo mujjee naa kon dem bootu ji ci ginnaaw Amadou Ba gannaaw ba nga xam ne ni yéeneem ak bëgg-bëggam moo nekkoon taxawal appel authentique euh, daje na ak premier ministre Amadou Ba waxtaan nañu démb nag ba finalement mujj nañoo déggoo nañu la ko yéen kaay di la quotidien xëye fi Abdoulaye ñu ngi jëm ci ubbite école yoo xam ne nii hmm. boo moyul ndànk yëngu-yëngu dana ci am ndax ñu ngi jëm ci parrainage bu ñu fa jógee ñu ngi jëm ci campagne électorale jëm ci élection présidentielle gars jàpp naa la fii ba ñu àgg ci février 2024 mooy daal njàng bi dana soxe lool mm-hmm. euh, jël nañ na kàddu gi jox ko euh, ku ci mel ni Cheikh Mabou ko si def joxe na ci xalaatam Doudou Wade wax joxe na ci xalaatam am soto soo si dibé ba ci demb Moussa Dembélé mi mm-hmm. ngi ci yéene kaay gii di l'info yéene kaay geneen critique yéene gii di critique nag président ki ëllëg mu tàmbali li nga xam ne euh, moom moo di remaniement maanaam tas gouvernement bi taxawal beneen gouvernement waaye li nga xam mooy li si xaw a doy waar mooy fi mu toll nii dafa mel nekk sénégalais si ba daal joxatuñu bopp euh, fonction ministre ndax dañu gis ne moom président Macky Sall ak juróomi weer moo ko fi dese euh, kon le fait mu def le ministre daal daanaka foofu moom euh, jarul puukere wu mm. ba tax daal fu mu toll nii Euh, yéen a kaay gi di critique xëy tey ji daal si amoon ab taxaw seetlu taxaw seetlu geneen Sud Quotidien waaw yéen a kaay gi Sud Quotidien ne Amadou Ba dootul nekkati jëwriñu njëkk bu réewum Sénégal li ko nag moo di candidat yi candidat bi nga xam doon na ko ngir wutu président Macky Sall ci bopp réew mi de euh, yéen a kaay gi nag Amadou Ba am na nag ñaar yéen yu koy xaar bi ci njëkk mooy coow li nga xam ñu ngi koy nemee ko jëpp am jamono ji ci parti APR naka lay def ba jéem koy saafara waaye tamit beneen bi Ablaye mhm. euh, mooy fexe euh, ba a xool naka lay def ba relever défi bi euh, jëmale ko ci li nga xam président Macky Sall bàyyi na ko fi moo xam ci gouvernance politique la mhm. ba ci gouvernance financière mu ngi ci yéen kaay gi di Sud Quotidien 24 heures lan ñu 24 heures xëy dellu soir ci langue politique bi ñu ne jamono ji neexul bu neexul waaye mënees na koy méngaleeg mënees na koy méngaleeg mbappat bu toj yéen kaay gi moo xëy fesal lu ni mel ndax lépp nag li ko waral mooy di président Macky Sall ne jamono ji du bokk ci élection présidentielle yi di ñëw moo tax fu mu toll ay candidat daa ñu ngay fàqee ko fu ne euh, la ko yéen kaay gii di 24 heures euh, wax ci Barça wala Barsaq ñaari téeméer ak juróom fukki doomi Sénégal yi amoon yéene dem fële ca Maroc dañ leen mujjee wallu fële nga xam di ca Maroc euh, yi amoon kon jot nañ cee jëlee ay gaañu gaañu métti nañ leen mu jël rawal l'hôpital yee le peuple ci loolu la xëy dellusiwaat. yéen a kii di le mandat le dellu xëy dellusiwaat ci euh, euh, gouvernement. de bi nga xam ne ni war Macky Sall euh, war na koy taxawal ni ko ëllëg ci sam samedi ji. mu nekk na gouvernement boo xam ne Amadou Ba du ci teew ndaxte Amadou Ba fu mu toll mu ngi nekk taxawal ab équipe boo xam ne lu mu ci jublu mooy. élection présidentielle yi di ñëw waa coalition Benno Bokk Yaakaar yéen kaay gi di la ne mbir yi bu doon ne gâteau la kon Macky Sall ëllëg la fas yéene partagé gâteau bu njëkk mhm. ak ñi nga xam ñoom ñoo di ay jegeñaaleem donc euh, leer na ci yéen kaay bi Dakar Times Dakar Times dafa sol ay dàllam dem ba fële ca Maroc wax ci suuf sa nga xam dafa yëngu ba lu solo junni ñetti junni ak doomu aadama ñàkk seen bakkan yenekaay gi nag buur ba di Mouhamed Sy Soumtane jël na ay matukaay ne yéenam ak bëgg-bëgg mooy ci diir bu mhm. mu daal di tabaxaat euh, dëkkuwaay yooyu le noonu la ko yéen kaay kii di Dakar Times xëy yéen kaay bi di stade waaw ba tey wax ci match bi nga xam doxoon na ci diggante Sénégal ak Algérie te Algérie mujjee daan Sénégal benn bal ci dara yéen kaay gi nag ba fii ñu ngi càmbar match boobule euh, li ko nag bokk na ci Boulaye Dia bi nga xam euh, ci doon xaar amul euh, ba ci kii di Ismaïla Sarr mi nga xam mooy lié na kii di Sadio Mané ndax bal yu ci bari moom ci loxoom ci tànkam la doon jaar noonu la ko yéen kaay gii de stade xëyee fësalee nangoog ko ci fukki gën a marqué arène bi ci diggante 2013 jàpp 2023 nee na ñetti fan ci weeru février ci atum ci la Lac Rose daan Modou Anta jël bu amul benn werante mu nekk nag jël boo xam ne ba tey ji ñu ngi koy fàttaliku ñaari fan ci weeru juin ci atum 2013 Balla Gaye daan Tapha Tine daf ko dóor ko duma daan ko euh, benn fan nag ci weeru juin ci atum 2013 Ama yóbbu à ci di Malick Niang magog euh, leer na ci leeru jamono mu doonoon xëtu yéen kaay yi ak Seydina Omar Ba Ndayane Imo distribution bi